Um furaco, né? Monsieur Soumaré. Ça, ça c'est Monsieur Pognan, le conseiller en communication.

Nous avons ak ses euh, services ñu signé avec office national de formation professionnelle une convention pour accompagner ñi nga xam ni ñoom yëngatu élevage. élevage gouvernement du Sénégal son excellence le président Macky Sall gis-gisam ak Sénégal atteindre lu autosuffisance alimentaire autosuffisance alimentaire nak bu koy wax du rek agriculture peut-être agriculture dans sa grande diversité mais l'élevage aussi doit jouer un rôle bu Nous ñu gis ni ndaw ñi bëgg nañu walum yar jur ndaw ñi aussi les lu jëm si euh, jur mu nek nous lo xamni Sénégal bu ñu ba ay tabaski wala ñu li nga ay wala ay di mais lool nak pour ñu mëna am autosuffisance alimentaire il faut que soxla bobu nga xam dañ koy am ci walum jur ñu mën ko am lepp si biir Sénégal loolu motax tax fonds bi nga xam mom moy mooy stap ñu tek ko fi pour mu jappalé ndaw ñi waaye itam jàppale ndaw ñi si lu ñuy wax entrepreneuriat ndax tay bo jëlé walum yar dafa nek lo xamni métier la waye tam ñun ñëpp xam nañ ni am na ay nit ñu bari ño xamni ñi ngi ci dundu di si dundal seen njaboot tedd ci am ci lu ne. kon nekk na métier boo xam ni tey bu ñu jàngalee ndaw ñi tàggat leen jàngal leen li nga xam ni moom mooy nan la ñuy gérer fonds yi ñu leen di jox waaye itam gën leen tàggat si li ñuy wax chaîne de valeur ndax tey bu ñuy wax yar nekkul rek da ngay am jur bi sa kër commencé ko yar dafa am lu bari loo xam ni moom moo nekk si ginnaaw lu mel ni jur bi lan la war a lekk état bi nag kat nañu jéem a tàggat. ñi nga xam ne ñooy yar si li nga xam ne moo jëm si wàllum culture fourragère ndax fourage boobu tey dafa nekk alternative boo xamante ni dina permettre ñu mun a yar jur yi ñu am aliment de bétail boo xam ne aliment de bétail bu jaar yoon lay nekk. ñu ne boo waxee chaîne de valeur bi wér yaram bi nga xam ni moom la jur gi soxla itam daf si bokk loolu itam état def na si ay jéego yu rëy. mais ONFP aussi daf si am loo xam ni ñu ngi siy liggéey maanaam ay métiers yoo xam ni tey danañu tàggat lu ñuy wax ay auxiliaires maanaam ay ndaw ñoo xam ni dañuy gën a jege euh, sàmmkat yi. di leen dimbali si saytu jur bi si saytu jur bi si seen wérgu yaram waaye itam si seen ay vaccination si lépp loo xam ne jur bi dafa koy soxla naam am nañ ay vétérinaire waaye xëy na lim bi matewul ni mu war a mate ba tax na ONFP commencé woon na waxtaan ak vétérinaire yooyu pour ñu xool nan la ñuy dugalee formation boobu nga xam ni day tax ñu mun a tàggat ay ndaw bàyyi leen si département yi ñu mun a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy yar mais bu ñuy wax itam wàllum élevage dafa nekk itam xam-xam si wàllum métier bi waaye itam xam si wàllum gestion bi ndax ki nga xam ne da nga yore sa ay jur di leen yar bu ñu màggee da nga leen jaay di nga am xaalis nan ngay def ba xaalis boobu ngay gañe nga mun a continuer di ko investir si li ngay def mu nekk itam ay xam-xam yoo xam ne dafa jëm si wàllum management jëm si wàllum gestion jëm si wàllum marketing loolu lépp ONFP tey daf si tàggat ay ndaw cohorte bi njëkk nag mi ngi toll ci cent soixante-sept ndaw yoo xam ni ay góor ak ay jigéen tàggat nañ leen si ay métiers yu mel ni nan la ñuy rey yare ay ay jur maanaam embouche bovine ak embouche ovine tàggat nañ leen si nan la ñuy defee production animale ndax tey jii boo reyee xar bi. nga war ko mëna utiliser nan lañ koy defee nan lañuy ñuy defee tannerie bi loolu lepp dafa nek ay mbir yo xamni dañ leen ci tagat pour ñu mëna am xam-xam bi ñu war am waye loolu rek du doy ndax buñu ñu bëggee am seen entreprise bop muy li nga xamni mom moy entrepreneuriat il faut ñu tagat leen tam ci walum gestion loolu itam jangal nañ leen nan lañuy ñuy comptabilité nan lañuy ñuy gestion nan lañuy ñuy marketing ba am nañ yaakaar ni kat ndaw ñooñu nga xamni formé nañ leen tay wa Fonstab nga xamni ñoy suñu ay partenaires war nañ leen mën a nag jox financement ndax ñun am nañ yaakaar ne bu ñu leen tey xaalis bi ñu leen di jox dinañ ko mën a utiliser ba mu jural leen ay revenu yoo xam ni ëllëg dinañ ko mën a delloo ñu ko jëlee woon yeneen ndaw itam daal di ko jël. kon ñu ngi am contentement bu mag di remercier encore une fois le monsieur le ministre de l'élevage à travers madame la directrice donc des euh, industries animales nga xam ne moo ko fi teewal tey waaye itam ki nga xam ne mooy coordonnatrice FONSTAB à travers également monsieur Eric nga xam ne bi ñu tàmbalee ba léegi moom la ñu di liggéey ak ki nga xam aussi mooy directrice donc de l'ingénierie et des opérations de formation bu ONFP donc ñu taxawal programme bi nga xam ni jot nañu tàggat tey ay ndaw si biir Dakar biir Thiès biir Saint-Louis Fatick itam am na yeneen corps yoo xam ne nag ñi ngi xaar ñu war leen a tàggat si région sud bi mais ñi ngi war a tam jot yeneen liste yoo xam ni waa FONSTAB dinañ ñu ko jox ba ñu commencé leen tàggat tàggat bi itam dafa am solo ñu wax ni ñi nga xam ne ñoo leen di tàggat itam dañoo am xarañte si liñ leen di tàggat ndax dañ nekk ay expert si wàllum élevage waaye itam nekk ay docteur vétérinaire xam bu baax a baax a baax li nga xam ni moom la ndaw yi war a soxla ak la ñu war a am si wàllu métier pour mën a doxal li nga xam ni moom mooy seen entreprise si wàllum élevage ak si wàllum yar jur ñuy lancer itam un appel di inviter aussi organisation yi nga xam ni tey ñoom ñoo am si biir Sénégal di yëngatu si wàllum élevage tey boo jëlee li nga xam ne moo jëm si ay laadu mag yooyu am nañu organisation yu mag ñooñu ñëpp ñu ngi leen di xamal ni état teg na ay fonds yoo xam ne ñu ngi au niveau du FONSTAB ONFP war leen tàggat

donc véritablement mu nek déjà collaboration bu bu am solo buñu buñu sante buñu buñu am satisfaction lu bare bare bare euh, di ñaan rek mu mu continuer mais juste pour rassurer et pour donner la bonne nouvelle xam nga ñun bañuy signé ak euh, wa ONFP dañ leen waxone tégal nañ leen ben ligne de 100 millions keroog bañu ñu recevoir waa Thiès ne leen ñun amaguñu satisfaction parce que 100 millions yaa ngi nelaw ba léegi amagul zéro mobilisation la parce que nag dañ leen ne juste après la formation dafa amoon étape parce que ci walu entrepreneuriat formation baxna formalisation baxna financement aussi mo ci gën Amna ñi nga xamantene ni dépassé nañ peut-être phase formalisation ak phase formation ñun fi may wax ak yow lu euh 11 projets ce qu'est-ce kese lañ jot a am dafa nak fekk ne lu tax tay 100 millions yi mënaguñ ko won mobiliser dañu amulone ay projets. Nous avons commencé notre projet il y a juste 15 jours ou 3 semaines nous avons commencé faire mbir mi mu tombé maintenant ak l'opération tabaski parce que ñun FONSTAB euh, moment également dafa am prioriser l'opération tabaski ce que je ñu ma rassuré ñi nga nous un projet, ñoo nekk fii déposer prochain comité bu ciy nous avons incha ci et puis nous avons di également ñi nga xamante ne nii nous euh, formaliser wu ñu parce que euh, baax na également entreprise indi euh, non euh, projet individuel duñ ko dak wala particulier mais du luñu gënal luñu gënal moy au moins ngeen formaliser wu ñi nga xamante ne nii ñoo bokk ci ay même gox wala am ben affinité wala bok ci même filière bu ñuy yëngu lañ leen ni ñaan rek ñu gëna bolo formaliser wu ñu et puis ñun dañ doon wax sax buñ ci jigeen ñii ñi nga xamante ne nii euh, jot nañ seen financement dañ leen o wax leen ko mais également nous devons ñu une porte ouverte parce que aussi il faut que l'information bi de telle sorte que euh, beaucoup nous ñu nous ñii am nañ ñi la am nañu ñi des leen wala wala mais également au niveau du a une nouvelle Une nouvelle le président de la République récemment a octroyé un financement de 2 milliards mais 2 milliards yi da ko ne ko entrepreneuriat mais surtout ñu def li nga xamantene moy mooy priorité yi ci walu filière benn bi lepp luy euh, bétail viande la xam nga bétail viande dañ ci intégré embouche reproduction ovine euh, bovine porcine etc mais également culture fourragère également dañ ko bolé euh dañ ci bolé lepp luy production et transformation laitière donc ak euh, luñ nane volaille ak production d'œuf de poule donc boy xol quatre quatre priorités yoy ñun mom lañu mom lañu gouvernement bi né nañ ko def de telle sorte que ñu mobiliser ñu euh, ci 2 milliards yi nga xamante récemment lañ ko mobiliser actuellement mo ngi trésor donc fekk ci nag. 100 euh, millions yi nga xamante tégon nañ ko uniquement pour les bénéficiaires de de euh, de la formation avec l'ONFP motax nak ñu wara a gaaw xaw baral loxo yi parce que je pense que 11 11 dossiers sur 180 176 bénéficiaires bon je crois également c'est c'est très peu peut-être certains me diront que peut-être une information mais ñun jot nañu ne am ngeen groupe WhatsApp yi ngeen di faral di partager une information donc nous leen di wax ne buñ ci jógee rek bëgg nañ ñi nga xamante ne nii euh, ñoo fi ñu rencontre porte ouverte pour au moins nous dire mon nous nous ñuy mobiliser parce que c'est pas intéressant gouvernement bi sur la table benn fonds bi te fonds bi nit ñi mënuñu consommer te ni koy consommer xam nañ yoon pour mën consommer donc euh, euh, la balle maintenant est dans le camp du fonds STAP et des bénéficiaires pour nous mën au moins rendre les voies et moyens pour rapidement euh, bénéficier du financement Et également il y a la deuxième euh, deuxième cohorte bi ñu ko commencer très rapidement et que peut-être que si bu ñuy tasewaat peut-être am ñu ñuy représenter nañu ah

Euh, nuyom bu baax a baax mais di la wax ne am na vraiment euh, contenté ci convention bi nga xam ne moo leen lié ak euh, sap bi nga xam ne mooy instrument bu am solo bi nga xam ne ministère de l'élevage daf ko teg pour jàppale acteurs yi ci seen wàllu activité élevage donc muy wax ne rek vraiment euh, euh, seen convention bi lim ci séntu déjà mi ngi koy gis parce que li ñuy wax ci bu naré neex bu baxé xeeñ déjà ci première euh, étape bi formé ngeen 160 personnes muy ay ndaw ay góor ay jigen ci ay modèle yu am solo muy embouche bovine embouche ovine muy culture fourragère muy production d'aliments mais aussi agriculture. mu nek ay domaine yu am solo ci secteur élevage ah yéen récipiendaires yi ma leen di vraiment di leen féliciter vraiment ci formation biñ ñu leen defal ah, comme li ñuy wax rek ah, soxna si wax na ko léegi jàngal la nu ñuy nappe moo gën di la may jën waa ONFP lëkkaloo ak FONSTAB jox nañ leen formation yu am solo ah, transmettre leen ay compétences ah foog naa ne euh, la balle est dans votre camp ah da ngeen am lu am solo parce que former la ba pare FONSTAB taxaw ne y a une ligne de financement pour donc financer leen defe naa ne loolu la jeunes yu bare doon wut ak ak ak jigen ak ñeneen ak ñeneen donc je crois que euh, chance bobu yéen ñep da ngeen ko wara saisir parce que élevage dafa nek secteur bu am solo bo xamné ni ah soxla nañ vraiment. ay ay ndaw ay góor ak i jigéen yoo xam ne nii dañuy soogu ci biir parce que bu ñuy wax modernisation du secteur de l'élevage si si si ndaw ñi lañ ko xaare ak si jigéen ñi ah, donc euh, li ma leen di wax rek euh, ginnaaw bi ma remercier bu baax man ci sama turu bopp waa ONFP waa FONSAP di leen wax ne rek il faut pas euh, donc ngeen toog di di xaar lu yàgg parce que nee nañ ligne de financement bi disponible na am ngeen déjà les compétences je crois que li ci des ngeen def seen i projet euh, def seen plan d'affaires ñoo déposé euh, ñu financer leen ci di wax ne rek secteur élevage soxla na loolu bu bëree bëree bëri parce que euh, dafa nekk secteur boo xam ne nii dafa bëri ay métiers yoo xam ni euh, ñi ngi ci biir am na métiers yoo xam ne la laala guñ ko filière cuir zepo mi ngi fi les tanneries ñi ngi fi ay jigéen ñu bari ñoo fay yëngu amna filière apicole bobu aussi jigen yi ñi ngi ci yëngu ak góor yi té yoy yooyu dafa guñ ci ay formation euh, donc je crois que euh, euh, li ñu def tay lu am solo la may wax encore une fois sama sama contenté encore di remercier bu baax wa ONFP waa FONSAP di leen ñaanal yeen aussi li ngeen liñ leen jàngal yalla na ngeen ko mourlo muurloo. salaamaaleykum. Euh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dooree nuyoo bi ci kilifa ONFPA bii fi nekk di ci sama nuyoo yóbbu ko ci waa ministère de l'élevage ndax euh, ci turu session yi amoon euh, à Dakar à Fatick à Thiès et à Saint-Louis la waxee ni ndax nit bu la defalee loo mënulul sa bopp nga ni ko jërëjëf di yëgal nag gaañi kan fi ñu toll dañuy soga démarrer activité bo xamanteni nous avons rendez-vous avec l'histoire ku ci nek na japp ni lay tax bu ëllëgee ñu mëna a sigg ci kanamu ñi ñi choisiroon ba ñu def formation bi ci yow la dépendre nous avons toujours fait appel à ce que l'État euh, les acteurs euh, de l'élevage lay amatul xam-xam bi ñi ñu tànnal ñi ñu tànnal ñoom mam Mame la ak euh, ñoom Issa nga xam ci côté marketing bi liñ ñu waroon a xamal yëpp macha allah xamal nañ ñu ko la ca des mooy euh, li ñaan peccum liir bu neexee dañ nday jaatee ca mbagg ya ñu dàq ginaar waxaale suñuy soxla nañu fexe ba nga xamee ni suñu coopérative yi au niveau de chaque chaque session ñu def comme ni waa Thiès def am coopérative bo xamee ni ñun suñu bos ma kaas lañ ko tuddee coopérative and suqali suñu élevage ñu bëgg ñu joggé ci lolu dem ci biir section yi wa Dakar wa Thiès wa Bambey wa Kër Ibra hein, euh Xombol ku ci nekk def GIE bo xamante ni action yi ñuy mëne coopérative mo makoy koy su lolu amé ñu sañ a nak que ni ñi ñu defal formation bi dinañ ñu tette tuuti ba ñu mën a ay conditions de facilité ci wàllu accès au financement suñu su loolu amee yaakaar naa ni ba di déwén ñu dajawaat fii def évaluation te bu boobaa yaakaar naa ni incha allah ñun ñëpp dinañu siggi encore ñu fois plus ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di gërëm kilifa yi nga xam ne ñu tànn ba tey ñu am xam lu ñu xamul woon

nañ koy defaree xam nañ ko euh, fañ koy defee xam nañ ko yaakaar naa bu ñu delloo tari moo ci des encore une fois de plus ñu ngi leen di sant leen gërëm di ñaan yàlla yàlla may leen ndam may ñu ndam di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam